match bi ben biñu ñu démarré ba ñu dem amul won euh, impact bu metti trop trop trop parce que non ñu ñu dugale woon mënoon nañ ko dugal moy li ma wax aussi lé que ñun capitaine bi doon football ci côté gauche bop dafa gaañu ñu indi ko xamné ne ak central la mu nekk si mauvais pied ñu dugal ko fa ñaari bit yu ñu jël yépp problème mu replacement la ñu jël ko comme je dis footballu tay bi dafa am efficacité bo xamné occasion bu équipe amee da ko siy def ñaari occasion la am dugal ko muy ñaari efficacité si football boobu lañ toll so dugalul am occasion di raté kii am occasion du dugal bu yàggee mo lay gagné. léegi da ngay def ben erreur ñu dougal sa camp légui nak li ñu mëna wax tay moy que fexé bu erreur yo ñuy def yëpp ñu bàyyi ko bañ jël bi mais di fexe pour du dugal bi parce que bo jëlul dougal ben sax yaay gagné mais fekkee né aussi do do dougal wala nga dougal ben jël leneen do gagné. buñu ñu am ci ben revers buñu démé dañ ci def jangat bu bari ñun ñëpp en staff technique euh, Africa Promo Foot yëpp motax tax may wax né fii ak si kanam tuuti dina changé parce que championnat des na encore waxuma ale bi jeexul mais des na encore énormément de matchs si si phase de retour bi. ko defna depuis juróom le journée bi amuñu possibilité possibilité de ñenti match euh, ñenti bal ci ben match donc tay xalé woné nañ ko effectivement je pense que c'est une satisfaction bi deuxième bi euh, action buñ parce que ñu dañuy du football tout le temps dans la réaction tay xalé nañ ils peuvent travailler dans l'action, nañ ko surtout au milieu de terrain. parce que gis effectivement xalé euh, dans le 4-3-3 duñ mëna jël ñom duñu donc ñom ay excentré mille excentré lañu donc après ma ne euh, dañuy xoolaat benen chopité donc ñi jéem a quatre lignes quatre lignes boo ne dinañ occuper terrain bi dans le sens la longueur avec euh, quatre lignes ñu def 4 2 3 1 parce que suñu excentré ñom dañuy bëgg ñu passe leen sen tank duñ nangu daw donc buñ ñu leen passé seen adversaire bi day euh, day bàyyi couloir bi seen ginnaaw appuyer kenn bu nekk si kanam et puis euh, espace bobu ñom mun nañ koo jël té loolu la woné wakam équipe bu mag la donc entraîneur bëpp jël wakam da ngay yaakaar effectivement def jaloore mais tey ni objectif bu gëna jampu jampu moy nañ jël poñ yi gën pour que ëllëg bu ñuy calculer chaque journée buñ ñu jël poñ bu gën bëré après dañuy boole poñ yooyu xol ban position lañ lañ occuper